Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak ci ndigalal kilifa section bii di euh, Baye Serigne Diop Muxtaar ci seen ndigal lañu ñëwee ànd ak sunu jëwriñ bii nga xam ne président section bi Baye Serigne Diop Muxtaar ak délégation bu xaw a yaatu ci ay responsable yoo xam ne ñu ngi ci daayira bi ñëw ngir ànd ak yéen liggéey bi ngeen xam ne taxawee ngeen ko muy mobilisation bu am njariñ bi bu rëy bu yaatu boo xam ne wax dëgg yàlla suñu ko seet na ci guy bi ñëwee ak nañ ci mobilisation bu seet bi guy suñu xol waaye ñu bëgg leen a xamal ne moom ñun fépp nu waaye woo te ci yàlla rek ak liggéey sëñ Touba rek ak loolu ma a jàpp rek daan def délégation ñu wuyu si leen waaw loolu ci ci mabda boobu ci principe boobu ci lañ ñëwee ak bokk giñ bokk ñun benn bunt sëñ Touba muy mu Moussa al Karim ak benn buntu mu sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma loo xam ne nun noo bokk lépp day mel ne benn tool rek ñu def ko ñaari waar kii di bay ci wet gi kii di bay ci wet loolu rek la moo tax moom bi benn la benn la kenn ku ci nekk da nga ne ci di waar rek di bay te kenn ku nekk itam gis naa ne waar ba nga nekk yaa ngi ci def la nga mën kon yëf moom leen la sotti ceeg def ci rek la sotti ceeg def ci la rek ndax ñaari waar dong tool benn la rek toolu sëñ Mourou Moussa la lii nag ay waar dong lay li ñu tuddee wilaaya li ñu tuddee ay balxadim leen lu ci nekk aw waar la boo xam ne ña ca nekk ca leen leen ca war lañ ca man lépp ñoo ko cay def kon ku ci amu xew ka ca war naa mën a bàyyi lam jàppoon lépp ñu wuy si la jàppale ca ànd ak yow jàppale la ca liggéey ba ànd ak yow xamal na itam liggéey bi noo ko bokk kër gi noo ko bokk ñëpp benn la kuy mën a ñëw rek nga xam ne ñaari waar a fi ne boo xam ne ñii ñoo sol mbub mu bula ñii sol mbub mu weex waaye kenn ku ci nekk liggéey Sëñ Tuubaa rek moo la tax a jóg la doon wéyal ndigal Cheikh Moussa ak sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma ñun ñëpp ci ron kilifteef ak xalaat sëñ Cheikh ca la ñuy dox ndax dayre moom ak foo ko mën a sose ak noo ko mën a tuddee ku ne xam ne dayre sëñ Cheikh ku fi indi kuy dox ci dayre ci xalaatu sëñ Cheikh lay dox moo tax ñun ñëpp ñoo bokk wenn waar ndigalu sëñ Cheikh ak bëgguk sëñ Cheikh rek ki nekk ñun ñëpp turi rek turi rek ñoo wuute ak xëy na comportement yi ci kaw ci zahir waaye kenn ku ci nekk fas yéene bay ci waaru Serigne Cheikh rek moo la tax a jóg sëñ Moussa loolu rek tax a jóg liggéeyal maamam ji tedd sëñ Cheikh kenn moo ko tax a jóg ak waajuram yu baax yi fi nekkoon sëñ Mbacké Soxna loolu rek tax sëñ Moussa jóg ci la ñu woo ci la ñu ànd ak moom liggéey sëñ Cheikh rek ñun ñëpp moon tax a jóg mënuñ tax li ñuy liggéey itam ci biir tool suñu Cheikh rek kenn génn ko ñun ñëpp boo xoolee ci bëggu suñu Cheikh rek la ñu nekk waaw bëggu suñu rek la ñu nekk daa toll nag kenn ku ñu ak sawaar ak na nga mën a liggéey rek waaw waaye ñoom liggéey moom benn waaw toll suñu Cheikh rek فدله الخطاق يا من به فارقني الإملاق